salaat lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absa wa safar falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada munin ani nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqi عليه سلام من له اكتب السفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا salaamaaleykum salaamaaleykum amés téléspectateur de la RTT TV du aman bégte contentement bu baax a baax euh, di leen servir euh, à la RTT TV euh, comme vous le savez tey ñun ñooy foo xamante ne mooy Mbour ginnaaw raay tey bu ngeen ñu gisee ngeen xam ne dañoo ànd ak mbégteeg ak contentement parce que ki nga xamante ne mooy Soxna Faye moom moo organisé loo xamante ne mooy safar te képp koo xam Soxna Faye xam ne kooku mooy taalibe Sine Saliou Touré kooku nag moom moo organisé loo xamante ne mooy euh, dix huit euh, suñu dix huit safar mooy septième édition euh, xam nga ku wax dix huit safar xam ne mooy mooy yittee murid yi te soxna Faye moom taal ba Sëriñ Saliou la organisé loo xamante ne mooy safar safar boo xamante ne min nañ ko ci moom surtout la RTT TV groupe RTT TV min nañ ko ci moom bu baax a baax a baax a baax ren nag moom mooy septième édition bi waaw mu ñëw fi xamante ne mooy Mbour fas yéene jébal loo xamante ne mooy carte marine bi fii di ko jox koo xamante ne mooy madame Cissé soxna May Cissé waaw tey nag euh, ñoom la ñu àndal xam naa d'ici peu de temps di ngeen gis soxna euh, ci euh, caméra yi moom mu jébale loo xamante ne mooy carte marraine bi aca yaa fatu bu baaxee dañuy ànd rek dugg foo xamante ne mooy ci biir kër gi ñu jox koo xamante ne mooy marraine bi si ñu carte soutien bi te di convie ñëpp képp koo xamante ne yow taalibe euh, Sëñ Tuubaa nga képp koo xamante ne murid nga muy xaade Tijaan Laayeen képp kuy wax asadon laa ilaaha illallaah asadona Muhammad rasulullah euh, invité nañ la ci euh, safar boobu noonu le 11 lay tombé incha allah fële ci Thiès quartier Somme ginnaaw lycée boo xamante ne au contemporain collège boo xam ne mooy Bédé Yacine école privée Bédé Yacine foofu la quartier Somme acca ñu fekk soxna fay foofu en merci beaucoup amit spectateur de la RTT TV comme ni ma leen ko waxee sànq actuellement euh, ak agsi nañ foo xamante ne mooy euh, ci marraine bi xam naa dama koy bàyyi euh, mu daal di nuyoog yéen après ñu xus ci waxtaan yi ñoo la siyaar. waaw ñu ngi leen di delloo ziar. nga baal ñu représenté wu gars yi ñoom ñu mën la xam. ah man la Sini Thiaw. Mm-hmm. Eh, yaayu soxna May. muy marraine bis bi safar bi macha allah nañ ca yegg ak jàmm. Uh-huh, sama rakk yu baax yi. waaw koo xamante ne mooy soxna. Sonia ñu gën ko xam ci Sonia ci euh, la RTT TV mais euh, yéen ngeen gëm co gën koo xam ci euh, Soxna fay mu def acte bu rafet acte boo xamante ne vraiment acte bu noble la mu organiser loo xamante ne mooy safar te yàgg na koo def ren nag moom mooy septième édition moom mu jël ko marine bi indi ko ba mbuur jox leen ko loolu acte lan la def ci yéen. ah macha allah kontaan rek di ko ñaanal yàlla rek gudd fan ànd ak weer macha allah ba li muy def rek at mu jot mu gën koo mën yàlla jàppale ko ci ak borom jumaa ji borom bés bi macha allah safar gi moom dañuy ñaan yàlla rek ñu fekke ko ci jàmm ak salaam macha allah. lan nga ñu mën a wax ci euh, kooku noonu jëmm jooja muy na Faye. ah macha allah kooku moom laf cat sama rakk la sama rakk bopp la euh, rakk joo xam ne daal bëgg na ay magam bëgg yaayam lool nag yaayam surtout yaayam bëgg papaam bëgg ay rakkam. bëgg ay doomi magam jàppale ñëpp daal tubaarikàlla dañ koy ñaanal yàlla daal jëkkër ju baax macha allah ci yoon bi mu nekk daal yàlla defal ko ci jàmm ak tawféex macha allah. parce gis nañ ne euh, bëri na ay moroomam yoo xamante ne ñoom euh, ñoom ñoo ngi comme ni mel moom macha allah euh, ñoom jël nañ beneen yoon boo xamante ne par rapport ak yoon bu muy jël moom foo fekk Euh, sëñ Saliou Touré lay lay lay wax wala euh, sëñ Touba moom bañ na ko sax ba ci waaw kër sëñ Saliou Touré la bokk moom mu jël loo xamante ne mooy 18 euh, safar loo xamante ñoom ñoo ngi siy jëm le 11 incha allah moom mu jël bés boobu tàbbal leen ko ama jamono ji dañ naan ndaw boo dénkee sa bopp yàlla sa ëllëg sa mag yàlla dala dala koy téyel te mu doon ndaw boo xamante ne macha allah euh, ku neex a nekkal la te ku euh, ku neex a euh, jëflante lay tamit muy soxna soxna fay mu doon koo xamante ne vraiment dañ ko ay kàddu yoo xamante ne kàddu lu mënta ñaax rek parce que ñun ñoo bokk fu ñuy liggéey ñoo bokk fu ñuy nekk vraiment amul xaar ma yàlla ak kenn mu doon koo xamante ne nit nit gënu ko nit ku laabiir te lépp alalam moom boo loo soxla ci moom moom yow yaa neex. parce que moom noonu la ko yàlla bindee vraiment te boo koy seen rek moom ay bëñam nga njëkk gis si moom mu doon ni koo xamante ne moom oyof teem sax daf ma daf ma ma jaaxal man damay naan loolu noonu euh, secret la ci ci ci ci famille bi la. macha allah loolu moom laf cat suñu famille moom macha allah boo ñu gisee suñu bëñ ngay njëkk gis soxna Faye moom dañ koy ñaanal yàlla rek yoon bi mu jël moom yoonu sëñ Touba yoonu bëgg sëriñ Saliou Touré sama rakk la. bi ma ci nekk xëy na booba xale la mais maa leen jiitu ci sëriñ Saliou ture fekk ci jàkkay murit macha allah sëriñ Saliou Touré noonu ku baax ku mën a defar nit ku mën a defar nit ci yoonu lislaam soxna mi macha allah sunu kër ñun ñëpp ay jullit lañu yoonu Serigne Touba rek lañu la ñuy topp waaye moom da caaraw waaw da caaraw lool lool lool allah gën a dox ci liggéey bi tubaarikaal dañ koy ñaanal yàlla daal laf cat daal laay mën a wax ci moom. boo amoon kàddu yoo koy dénk yan kàddu lay doon. ah mu jàpp rek li mu jàpp nii fii mu dëgmal bu mu ko bàyyi fii moom macha allah li gis nga suñu njaboot gi tamit moom moom événement jotee mooy jënd mooy def yëpp bëgg na góor bëgg na jigéen suñu doom yëpp woote ñëw leen chaque jour mu ñëw leen xale yi nangam nangam kii daal li ma la wax rek laf cat macha allah waaw. aywa kon soxna kàddu yaa ngi noonu dégg nga ci euh, lii dafa neex amoon ñëw ba ci say biir mbokk ñëw ñu lay séddal loo xamante ne euh, vraiment ay kàdd yu rafet la ay kàddu yu baax parce que dañ naan nit ki baax na baax na ay mbokkam bu ñu ko waxul amul amul sens te kon soxna gën a la góorgóorlu nga gën a jàpp yoon bi foofu la fi nga ko jàpp foofu la euh, ñu ñaan yàlla yàlla gën la dëgëral gën la kattanal bu baax a baax a baax a baax def la mag bu am diine mag bu am lislaam parce que yoon bi nga jëm foofu la xam naa dañuy xuus ci koo xamante mooy maran bi rek ñu jàll xam nga salaamaaleykum maa ngi ñuy yéen ñëpp di rafetlu jotaay bi kontaan naa si trop trop parce que ñoom ñooy sama yaay ñooy samay xarit ñooy samay lépp buñ fekkee ñu toog dañuy foog ni sax ay moroom lan mais dañoo yaatale seen bopp wàccee seen bopp um, kii ñu daal si lépp te en plus affaire bi kontaan naa si trop vraiment sama xol dafa sedd mënu moo wax dara. <laughs> waaw loolu la man maay soxna May te ñu ay murid lan dañ si saf sàpp daal. rafetal nañ ko trop. te yan yan la ñuy wax. ah daal macha allah baax na. bëgg na ñëpp baax na bëgg na ñëpp ouverte na xolom bi dara nekku si ah, lu nekk si moom nit moo ko bàyyi si moom. dañ koy ñaanal la yàlla lépp mu xam fu mu jëm yal na ko suñu borom eggale si daraja Seydina Muhammad si daraja Serigne Saliou Mbacke. aywa merci beaucoup kàddu yaa ngi noonu xam naa ndeysaan euh, xol bee xaw a fees ba moom euh, li nekk ci xol bi sax moom mënu koo génne à 100% parce que lii rek am solo parce que nit euh, amul kenn ku dul ay mbokkam. parce que li wane na ne euh, soxna nekkul euh, koo xamante ne euh, nitu nit nitu ordinaire nga parce que bi ñëwee fii moom macha allah ay njóobeen yi xam nga ñoom gis nañ seen bopp bu baax a baax ba parce que teraanga bi neex na te te boo xoolee xam nga actuellement maa man maa maa maa ngi xalaat sax est-ce que moom dina dawal ba ñu àgg ci sax xam naa dañu ñëw rek xam ñu dugg ci loo xamante ne mooy kii bi lettre bi ñu daal di koy jébale. firaari bilmuxtaari min qablu qaadali mukuusan wa tafsiran la jinni wal bashar bi waaw tey nag vraiment xol yi sedd nañ mais yaay booy ñun mën nañoo dem nag te sans ñu laaj la euh, ci sa doom ji nii ana lan nga xam nga ñuy wax allah kii sama doom la macha allah laay wax nii li yombul waaw sama xol daa sedd man mi tamit sama rakk jóge ba Thiès ñëw fekk ñu fii Mbour indil ko lu toll nii lii dañ ci dañ ci am kontante bu bari macha allah di leen ñaanal yàlla ngeen yàgg koo mën yàgg koo fekkee nii kii soxna may mii sama doom la sama xarit la loolu yàlla def na ko dama koy bàyyeeg yàlla rek yàlla gën koo defar ngeen koo jàppale ne fii ngeen ko indi ba tey yàqu leen ko fi ngeen ko war a indi soxna may kuy sa jur mu ne sëñ Touba macha allah kon def ceeg sotti ceeg def la macha allah yegsi na fa mu war a yegsi macha allah kontaan nañ ci lool kontaan nañ trop trop macha allah waa kay. <laughs> Aïcha mu ngi noonu yal na yàlla kontaan comme euh, vraiment tey moom mbégte la. maa ngi naan euh, man bi ma nekkee RTT TV ba léegi man journée bi ma journée bi ma am tey man yaa jàpp naan man maa koy door a am waaw. parce que soxna da doon ko ko kenn koo xamante ne kenn la ci ñun comme ni ñu koy waxee parce que lii yàgg na koo def mais ren moom euh, dama jàpp ne bés bi ren dafa nar a gën a alaa daw me parce que image mu jógee ba euh, Thiès ñëw Mbuur fekk fi ñoo euh, mbokkam xam nga ñëw tab jébal ko loo xamante mooy lettre marraine bi mu jàppal bés bi nag yow yaa moom sa bés la te bésu Sëñ Tuubaa te képp ku ci def dara xam ne ah sëñ Touba nga nga ngay liggéeyal te moom moom moom moo ci yoon boobu noonu soxna mi moom moo ci yoon yoonu ci yoonu sëñ Touba la la nekk te soxna gën a la góorgóorlu bu baax a baax ayca mbokk yi lii lañ leen tey euh, foo xamante ne mooy euh, diwaanu Mbour ñu ànd ak koo mooy euh, Soxna Faye waaw ci loo xamante ne mooy wàccaayu 18 safaram le 11 incha allah fële ca quartier Somme moom mu ñëwoon Mbour tey quartier ginnaaw raay muy fas yéene muy jëbal loo xamante mooy carte marraine am ki koo xamante ne mooy kenn la ci moom muy Soxna May Cissé waaw bés baa ngi noonu le onze la incha allahu rabi mais bés ba nag euh, dinañ euh, rendre hommage koo xamante mooy Serigne Saliou Touré mooy yaakaaru euh, waa Thiès mu doon koo xamante ne def na lu bëree bëree bëri bëri euh, diwaanu Thiès muy kenn ci euh, foo xamante mooy cees macha allah dina ko ñaana bu baax a baax a baax a baax yi tamit ñu yem ci euh, Serigne Saliou ture rek dinañ fas fàttali ko koo xamante ne tamit moom kenn la woon ci soxna mu doon koo xamante ne moom ak soxna daaw nañu yaatal lu bëree bëri daaw nañu sekk ci lu bëree bëri ci liggéeyu Serigne Saliou Touré muy soxna Ndeye Ami Ndiaye waaw dinañ ko rend hommage ci bés boobu noonu incha allah soxna dinañ la naan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 طلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به